dund leen màggal tuba atum 2024 ci almouridia ak ci sunuy réseaux sociaux maanaam mbaalu jokko yi ngir bañ a wuute dara ci màggal gi wéy leen di seetaan almouridia ci TNT canal 13 canal plus 226 ak Eutelsat W16A almouridia TV moo leen di ñaanal màggalu jàmm ëllëg mu ngi ci loxo ñi am lu ñu gëm te jiital seeni pas-pas ñii jàpp ni suba mooy dàkk tey jëfliwaat ngir tabax ko ëllëg mën ci seeni loxo tànn leen immobilis maanaam financement bi jën ci tabax wala jënd kër te banque islamique du Sénégal indil leen ko ngir gunge leen ci yoonu am seen këru bopp ngir dëkkal seen njaboot ak immobilis am dëkkuwaay mësta gën a yomb lii kon nag dox daje ci suñu agence wala ngeen fekk ñu ci suñu site web wala suñuy réseaux sociaux yi ngir yeneen i leeral Banque islamique du Sénégal, la force d'une vision commune. الود الصمد إلى خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحقيقي أنقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد لي شمل عدو هاشمي ربي بشاي المصطفى بن هاشمي لي جاد ربي بنوال قد أناف بالمنتقى المختار من عبد مناف دعائي استجاب بالمخفي ربي بالمختار من قصي أسأله نيل المنى بلا استلاب ولا غرور بالنبي ابن كلاب ليشد بخير واكفني مضره ربي بجاه المجتبى من وره طيب فؤادي بروض صعبي لي أبدا بالمنتقى ابن كعبي يا الله يا العرش والكرسي صلي بتسليم على اللؤي يا رب سخري جملة المطالب بلا حساب بالنبي بن غالبي بديع سخري كل شاري وكل يوم بالنبي بن فيري يا خير ناصر وخير مالك انصر وملكني يا بابن مالك خبيتي وعزتي ونضري كونك لي فليكن بالنضر اضري العدا ولي اهم جنانه بالمنتقى المختار من كنانه مبكي sëriñ bi délégation bi fi ñëw moom la fi président bu Mauritanie yebal Sayid Mohamed Wul Cheikh Al Ghazwani ñu jógee Mauritanie ki ko jiite xataari Mouhamadul Habib son excellence ca jóge ca ambassade ba mi ngi ànd ak Mouhamad Foukounaache bokk ci protocole président bu Mauritanie ànd ak Cheikh Mouhamad Badi directeur centre culturel bu Mauritanie ànd ak monsieur le ministre Madine Ba di sab ànd ak Daymaani Mouhamad Yahya ba tey di nekk ci ambassade ba waaye di sab taalibe ñoo ñëwoon ngir di leen nuyu si ak di ànd ak yéen ci màggal gi comme niñ ko baaxoo def ak di ëndaale leetaru njiitu réewu Mauritanie Mouhamadul Cheikh Al Ghazouani comme niñ ko baaxoo def ca yàgg la ko jébbal lenn li di ay giléem boo génnee danga ko gis lenn li di beneen leetar boo xamante ni incha allahu taala danañ ci wax ak yow ci ak wéet xam naa damay jox ki jiite délégation bi rek mu wax xattaari Mouhamadul Habib incha allah. نحن هنا اليوم كما جرت العادة جئنا مهنئين بهذا بهذه المناسبة العظيمة وجئنا كرسل ومبعوثين من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني الذي يحرص كل الحرص على أن تكون موريتانيا ممثلة مع إخوتنا وأهلنا في طوبا بهذه المناسبة العظيمة كما تعرفون ما يربط موريتانيا وطوباء من وشائج معروف لدى الجميع وراسخة في الأذهان فنحن والشيخ الخديم بيننا سيرة طويلة من من من التحابي والتوادي و كانت موريتانيا دائما نصيرا لي لي لي, لي الشيخ أحمد بن رضي الله عنه طيلة دعوته ومشواره ومقاومته للاستعمار الفرنسي و, و موريتانيا لن لن لن لن قررت ان ان ان, أن تناصر الشيخ منذ بداية دعوته و و ونحن على على درب الأسلاف إن شاء الله سائرون wassalaamu aleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim ki doon wax moo jiite délégation bu Mauritanie bi fi président bu Mauritanie yónni Seyyid Mouhamed Ould Cheikh Al Kaswaani euh, li mu wax rek mooy nee na li nga xam ne moo baaxoo am Mauritanie ak Touba benn lañ waaye duñ ñaar moo tax lépp loo xamante ni Touba mi ngi ci Serigne Touba Mauritanie mooy ki ci njëkk jiitu mooy ki ciy gën a fës moo tax ñu def délégation bi nga xam ne ñenn ñi ñu ngi jóge Nouakchott ca palais président ba muy direct kiiw protocole be ñi ci des di waa ambassade bi jóge dakaar ngir fas yéenee rek ànd ak yéen liggéey bi fas yéenee ndoog yéen rek incha allahu taala comme ni mbokki taalibe yi nekk ak yéen fàttali na lay kóllëre gi dox digganteem Mauritanie ak Touba nee na lu yàgg la lu dëgër la. moo tax àdduna lu mu soppiku soppiku ak lu mën a xew lépp lu Touba nekk rek Mauritanie dana ci nekk loolu la président bu Mauritanie xam moo tax mu ne leen na ngeen dem bu sañoon délégation étranger bu fay ñëw bu Mauritanie moo fay jiitu te liy dëggal loolu mu wax ane at mi nga xam ne Covid bi am na sëñ bi joxe woon ndigal ne bu ñu invité benn étranger seen président ñoom bi mu ko déggee dane bu ñu leen invité wutit na ngeen dem bu ngeen demee lu Touba nekk ngeen nekk ca buñ Covidee ngeen Covid. buñ buñ dundee ngeen ànd ak ñoom dund daan na leen ca la indu xew année booba ñoom rek ñooy ñi fi teew benn délégation étranger teewu fi nee nañ nag ñoom loolu la ñu dëggal incha allahu taala foofu la ñu àgg ak Serigne Touba moo tax ngeen xam ne ñenn lañu rek ci njaboot gi moo tax ñu ñëw ak délégation bi noonu mu composé woo ak addiye yi nga xam ne àndaale nañ ko incha allah lenn li bu noppee da nga génn gis ko li ci des incha allahu taala danañ ci waxtaan yow ci ak wéet euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. السادة الضيوف الكرام مبتعث مبعوث فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني فضيلة الشيخ محمد البشير ابن الشيخ عبد القادر رئيس اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الكبرى موسم مقة الطوبة والناطق رسمي باسم الخليفة العام يرحب بكم في مدينتكم الأولى والثانية مدينة طوبة aacimatu tariqa almuridiya niyaabatan an sinwihi wa cheikhihi alxalifa alaam cheikh mohamad almuntaqa wa yaqul laa daaiya liltakraar yuridu an yaqula lakum anna mauritania wa shinqiit xukumatan wa fi muqadimatihim faxaamatu rais sayid mohamad wul cheikh alxaswaani wa kullu shaabi almauritani la taxtallu makaana azima fi qulubi cheikh ahmad bamba wa fi qulubi almuridina jamian wa haadihi sunna warisnaaha min jaddina wa cheikhina cheikh alxadim wa sa tabqa haadihi al alaaqa bi idnillahi taala ila an yarisa allahu al arda wa man alayha wa antum taban fi bi qiyaadati faxaamat rais aljumhuria sayid Muhammad wul cheikh alqazwani xayru man axyaw haadihi al alaaqa alxamima wa haadihi rabita altaarixiya bi idnillahi taala wa sa nabqa naxnu ka muridiyin wa ka usrati cheikh alxadim xayra xaafisin li haazal ahdi insha allahu taala fa cheikh yusallimu aleykum wa yujaddid lakum taxiyaatihi wa tashakuraatihi wa yatlubu minkum insha allahu taala an tabqaa huna fi tuuba insha allahu taala muqaaman saidan wa kullu aamin wa antum bi xayr wala tazaalu madinatu tuuba bi qiyaadatiha cheikh Mouhamadul Muntaqa tatadakkar tilka almawaaqif annabila fi ayaami al azma al corona xaysu lam yaati ay wafd xaariji illa wafd Mauritanie wa hada in dalla ala shay wa hada in dalla ala shay innama yadullu ala xirsikum taam li tawtidi hadihi alalaqa wa taqwiyatiha wa yaqulu ala kulli xaal shukran wa alfu shukran wa kullu aamin wa antum bi xayr bi idnillahi taala sawfa yaxruju maakum li yara hadihi almakruma wa incha allahu taala idan sawfa tadhabuuna bi idnillahi taala li muqaabalati alxalifa alaam incha allahu taala baada lahzat wa kullu aamin wa antum bi xayr wa yatlubu minkum an tuballigu asmaata xayaahu ila faxaamati raisi aljumhuriya sayid Mouhamadul Cheikh al Qaswaani wa ila xukumatihi al muwaxara wa ila kaafati shaabi al muritaani shaqiq wa incha allah tuuba lakum wa kullu aamin wa antum bi xeyr wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh xam naa kàddu yi sax du gudd ndax sëriñ Mouhamadou Mourtada Bousso moom mi nga xam ne mooy hamzatul wasli bayna at tariqati al muridiya wa chanaqita rasmiyan mooy al mutahaddis bismi tariqatil muridiyya jëm ci seeni wàll kon li tax ma di ci sànni kàddu mooy kàddu yu seere jëm ci suñu bokki Mauritanie yi bi nga xam ne président de la république islamique Mauritanie euh, Seydou Mouhamadou Ghazouani at mu jot mi ngi koy def ba mu toogee ba léegi mooy lu mu fi fekkoon waaye bi mu agsee nag moom da ko yokk gën koo jox yitte ju rëy bëgg Serigne lool fonk ko lool jox ko cër bi mu joxul kenn waxtu ne itam ay ndawam di fi ñëw amul lenn lu muy dugg itam wala luy xew ci moom wala lu muy def te yooyu néew délégation mu bàyyi ko Mauritanie ba ci Sénégal ci Cheikh mu taxa kon nag moom li Serigne Touba doon junj. ci digg mu mursani daf mel ne ci moom la gën a feeñ dëgg dëgg dëgg moo tax mu Mouhamadou Mountakha ràññee ko loolu doonte gisante gu moom waaye ay ndaw ba mu fi ñëw mu ngi koy ñaanal bu baax itam di ñaan itam diggante Sénégal ak Mauritanie yàlla di fi def jàmm ba faw ndax ñoo bokk Serigne Touba te Mauritanie sax damay wax ne dafa Serigne Touba am amu ko amuko ko Sénégal ñoom dañ koy wax ndax dañuy wax ne Mauritanie Serigne Touba rek lañ lañ lañ dëppoo ña ña nekk ci atarixatu xaadiriya atarixatu tijaniya atarixatu chajaliya ñëpp ak ña bokk ci atarixatu muride mënu koo xamee ñëpp nangul Serigne Touba Serigne Touba it bëggoo leen lool fi fil bari taxta sajara wal jawu tayibun wa xawli barara kon woote naag la ma waxan wa xawli fajara kon ñu ngi feddi loolu bu baax a baax la ca dolli ko waat mooy boole gi leen yàlla boole nga xam ne boole bu baatin la mooy li nga xam ne feeñ na ci diggante Sénégal Mauritanie muy pétrole bee ak gaz bi muy loo xam ne euh, buñ ci jàppalante réew yi ànd ci nekk benn ñi jiiti réew yi ànd ci nekk benn njariñ lay doon ci ñaar ñëpp dañuy wax buñ buñ dee déggoo rek te mel ne yàlla ci def tawfeex ba gën kon yàlla gën a jëm kanam kon ñu ngi ci soññ ñaari njiiti réew yëpp ñoo xam ne waxuma la lislaam ji leen boole ak seen population bi nga xam ne benn la waaye li leen boolewaat kon ñëpp am responsabilité ci sàmm bi diggante bi kon ñu ngi leen di yóbbante nuyoo ci moom ak cant ak ngërëm di ko xam ne sëriñ bi gis na taxawaayam ñu ngi ko ñaanal bu baax. mandat bu bees bii nga xam ne mi ngi koy door am ta bi élection yu jub yebal na fi délégation sëriñ bi sëriñ bi ñaanal ko ca teg na ci bëtam ba yàlla def suñ boppam mu tegaat ko fa. bu yàggut sama yoon mu fi mujj rek Mauritanie bi mu yëgee ni ñëw naa dane woon daa bëggoon ma xaar ba ca suba sa waaye boo fekkee ñu lu mënta ñàkk ñibbi si pour mu gisanteeg man loolu lépp ak yëg la te mu wooteel boppam mu ñor ko ginnaaw bi ñu dikkee bi mu wootaat ndax man damaa dellu ci waat waaye mën na ko xëy na ginnaaw màggal kon da ngeen ñu ko di bu baax di ko xamal ne ko daal Sénégal ak Mauritanie mel ni réew la ñi fi dëkk itam wenn xeet lañ rawatina nag seen digg ak yoonu murit jërëjëf. ëllëg mu ngi ci loxo ñi am lu ñu gëm te jiital seeni pas-pas ñii jàpp ni suba mooy dàkk tey jëfandikoo ngir tabax ko ëllëg mu ngi seeni loxo. waxtaanee leen immobilis maanaam financement bi jën ci tabax wala jën kër te banque islamique du Sénégal indil leen ko ngir gunge leen ci yoonu am seen këru bopp ngir dëkkal seen njaboot ak immobilis am dëkkuwaay mësta gën a yomb lii. kon nag dox daje ci suñu agence wala ngeen fekk ñu ci suñu site web wala suñu réseaux sociaux yi ngir yeneen i leeral. Banque islamique du Sénégal, la force d'une vision commune. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñuy publication mën ngeen abonné Al TV te bu leen fàtte laal cloche bi.